dina ñew lay bo xamne dañuy tok suba ba ngon ba suba ba guddi di wax. ay aywaay parce que fi tol toll nii moom foo tok hmm après réew mi moom kenn hmm ñun ñëpp a bokk te bu ñu seetalee réew mi sa mam dudu day day am walam hmm. sa mam sama mam am wàllam maami Aysatu am walam hmm nous tous on est sénégalais par la géographie et par l'histoire. absolument. Hmm. donc Rémi, kenn waruñu cee jéem a xalaat sax ne dañu ci tere wax wala mm. tere voilà ku ne da war a wax parce que réew day toll foo xam ne ni ah mm. Mm. xamoon waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko te foofu la réew mi toll ma sàcc rek laaj la ku ne ku am xalaatam war nga ñëw wax ko waaw waaw ma sàcc rek laaj la est-ce que mun na est dans l'ordre du possible que Cheikh Yérim Seck figure sur une liste aux législatives Non, non, non, man j'ai fait le choix. de Je suivre et de ci benn liste. du ma bokk ci le parti politique. d'ailleurs man dama une discipline sax parti politique parce que parti bu ma parti de mon dégoût de mes dents. Ah, man bon, ma duggoon ci benn parti dañ lay parce que man man mënuma adhérer ci organisation boo xam ne du ma wax li ma xalaat. dëgg ah, la. waaw te man koo mënti doon boo toogee bu ñu waxee wax boo xam ne xalaatuma dama naa leen lii xalaatuma. dëgg la. Mora buma duga ci fati ko ci mo ndax waaw aw ma dikk tin bobu waaw parce que li ma xalaat mom mom dama koy wax ba ñu ray ma wala ma dé waye dina ko wax ko fu mu man asam bo ñëlé jël parti bi aussi def ko lo xamni ko do man ñëw ci ko wax taw ko do menace la ko mu wax ci affaire jomaay wala non la démé donc donc man bokuma ci benn parti bokuma ci benn liste ba paré faraluma kenn man sénégal la faral deug la waaw sénégal la faral hmm. waaw soo gisee mani ni nañu nañu nañu xool bu baax ñi ñuy voter ci législative yi mm-hmm. mooy déjà ça fait six mois ñuy expérimenter Pastef six mois mm-hmm. léegi nag six mois yi lu bari xew na fi mm-hmm. ci liberté yi lu bari xew na fi ci koom-koom loo xam ni effet bi wax na ko yooyu yëpp faaw ñu xalaat ko bis bi ñuy dugg ci mbañ gàcce bi absolument <laughs> waaw parce que nag euh, loo ñamagul moom d'accord mais loo ñam ba pare. Ah. commencé koo taxante ko di xam ba xam lii mën naa dem wala mënta dem. Mhm. waaw donc nit ñi faaw ñu xam ni choix bu ëpp solo la. parce que si tu veux euh, législative bi ñëw mooy deuxième tour élection présidentielle bii ba après bii ba. exactement mhm. ah, waaw.